di sen soppe cheikh mohamoudou mara gueye ngi len di siyaare bu baax bah, baax di ñaan sama kaddu fekk len ci jamm fi ngeen mëna nek nuyo bobu ak ziar bi nak ñu ngi ciy jiital fadilu serigne touba cheikh sidi mukhtar ayada allah wa nasrahu yal yalla doli ko ndimbal ak katan ak xewal ba li mu sumbal l'islam bi sumbal ko yoonu murit yépp suñ borom katanal ko mu àggale ko bu baax ci daraje cheikhul xadim mbokk yi ñu ngi dellu siwaat fii ci seen ñeenteelu épisode muy seen ñeenteelu jotaay bi ñuy toppee siira cheikh ahmadul xadim ñu lëkkale ko itam ak siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis ngeen ci jotaay yi ñu génn niñ leen ko doon leerale ci waxtu wu ne ci diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak cheikh ahmadul xadim nga gis ni kon sëriñ bi jël tànkam rek teg fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tegon tankam kon nak dinañ leen ko toppal niñ leen ko digee won ci band bu njëkk ba rek insha allahu rabbi gis ngeen ni bi ñu genn sunu kaset bi ñu genn rek ñi ngi leen doon wax digënté yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak abo bikrin bi ñu joggé ci xunt mi jëm madinatul munawara gannaaw bi yonent bi agsee Madina nag gis nañ ni waa Madina ñoom ñëpp génn nañ teeru ko ndax innal muhajirina wal ansaara lam yahbudu yahudu wa nasaara gis nañ ni muhajiroon yi ñoom ñooy ñi gàddaayoon ànd ak sallallahu taala alayhi wa waaye nag waa madinatul munawara ñooy waa ansaar yi ñoom nag ñoo dalal sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir li ko suñu borom waxoon ni lakkat kaana lakum fi rasulillah uswatul xasana kon nag ñépp booba yàkkamti woon nañ ko gis ba jël seen jukko yépp dëpp ko ci jukkoy yenent bi alayhi salaatu wasalaam mën ko roy ngir ñu am texe ak ngërëmal sunu borom subhaanahu wa gis nañ ni itam yonent bi sallallahu alayhi moom la suñu borom waxoon ni ko wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yow sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam dama lay yónni rekk ngir nga nekk yërmande bindeef yépp waaye nag suñ borom gën a insister ci doomu aadama nga xam ni moo waxoon ni wala xad karamnaa banii aadama doomu aadama de maa ko bind ba noppi teral ko mu gënal ma ci mboolem mbindeef yi mu ne ko kon wa ma arsalnaaka ila kaafatin linnaas kon nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba tey suñ borom ni ko dama laa yónni ci nit ñi gannaaw bi ma la yónnee ci mbindeef yépp te nit ñi itam ci biir mbindeef yooyu lañu bokk waaye dama la yónniwaat ci doomu aadama yi ngir nga jubal leen jubal googu nag moo taxoon cheikh ahmadul xadim cheikh xaadimal musawa daal di jóg jël léppam jox rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax euh, jotaay yi ñuy weesu ñu doon def lëkkale diggante sëriñ bi ak rasulullahi ngir jukko yi niñ ko nuroo ci tedd ngaam yi ci jukko yu sell yi jukko yu mag yi cheikh ahmadul xadim roy ko ci lépp waaye itam roy ko itam ci gàddaay googu yonent bi gàddaayoon moo tax cheikh ahmadul xadim gàddaayoon fële mbàkke baari jëmoon ci diine jëmoon ci géej gi incha allah dinañ ci indi lu bare bare bare wax nañ leen ko itam ci sunu jotaay bu njëkk cheikhul xadim ñi nga xam ni ñooy ay waajuram suñu borom feeñal ko ci diggante yooyu muy ci sëñ Mor Anta Sali sëñ Mbàkke maam Mor Anta Sali ak ki nga xam ni mooy soxna jaaritullahi Mariama Bousso sëñ Mor Anta Sali itam bokkoon ci askan wu tedd te boo toppee càllala ga yépp day dellu ci alayhi salaatu wasalaam mu nekkoon itam góor goo xam ni alxuraan ak sunna rekk la tegoon tànkam baynal kitaab yi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati sahabatil wusul ñu gis ni itam ku rafetoon xam-xam la waaye ku rafetoon jukka la itam waaye itam ku yàlla joxoon cër la ci lislaam bi mu bokkoon sax ci ñiy atte doonoon ab xaali gannaaw loolu itam gis nañ way juróom wu jigéen wu tedd wi di maam jaaratullah mariama buso nga xam ni ci juróom-ñaareelu atam rek la mokkaloon alxuraan waxoon nañ leen ko juróom-ñaari at ci la soxna si mokkal alxuraan waaye bi muy am fukki at ak juróom mboolem fànni xam-xam yépp soxna jaara mokkaloon na ko ki ko njëkkoon a dalal alxuraan itam mooy maam astawaalo naawel di way juróom moom maam jaara buso nga xam ni soxna su tedd soosu gane na àddina ba ni mu delloo ci suñ boroom maanaam jaamu yàlla rek la doon def waaye jàng ak jàngale rek la doon def gis nañ ni soxna soosu dundoon na téeméeri at ak fanweer ak ñett waaye gis nañ ni soxna jaaritullahi mariama buso fanweeri at ak ñett rek la dundoon moom ci kaw suuf waaye xool leen liggéey bu rëy bi ba indil ñu sang bu tedd boobu sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadul Xadim xaadimu rasul kon nag ñu jàngee ci ni ni ñu waajale woon yenent bi sallallahu alayhi wa noonu rekk la suñ borom waajale itam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul waajal ko ci ci ci ci biir waajal ko ci bitti boole woon ko itam ci nitu yàlla yi gënoon a mag nga xam ni sëriñ bi loolu ñuy wax ak ndaw sax moom mosu cee jaar ndax fi mu feeñee jamono ba biñ ko noppee gis yitteem yépp daf ko jëmale woon ci boroomam subhaanahu wa taala waxtu wu nekk mu jël yitteem yépp jëmale ko ci yàlla jëmale ko ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam musta xam luy caaxaan musta fo musta caaxaan musta nangu ànd ak képp kuy caaxaan dëgmal boroomam rekk ak rasulullahi sallallaahu alayhi wa li mu war xam lépp itam li doomu soxna war a xam lépp Cheikh Ahmadul Xadim xam na ko li doomu soxna di gëstu yépp sëriñ bi gës na ko gëstu na ko ci wàllu diine waaye ci wàllu jukko ci wàllu taarix xam na itam ci fi mu bàyyi ko xam na fi mu jëm ndax buñ ko daan wax rek dafa naan ilallaahi minallaahi ci yàlla lañ jóge ci yàlla itam la ñuy dellu waaye itam bi ñu jaaxlee ci ay mbiram ci ni mu dëgmale boroomam rek te mosta jaar ci ndaw biñ ko laajee yow yaay kan daf ni ayatin min ayatillah kéemaan laa daal gu bàyyikoo ci kéemaani suñu borom yi subhaanahu wa taala kon nag mbokk yi loolu lañu fas yéene inchaa allahu rabbi indi leen ko ndax xam ngeen ni ñi ngi dëgmal weeru safar wi ndax ñi ngi ci weeru mooram te nekk ca cat la nga xam ne buñ ko génnee rek safarul xayri lañ ci daal di teg safarul xayri nag buñ ko tuddee xel yépp daal di dem ci Serigne Touba xel yépp dem ci màggalu Tuubaa gi waaye la ko jiitu woon itam sëriñ bi sancoon na dëkk bu ñuy wax Daaru Marnaan doon fa jaamu yàlla doon fa wéetal boroom bi subhaanahu wa ba suñ boroom jox ko ndigal mu bàyyi ko foofu ñëw Mbàkke Baari bi mu ñëwee Mbàkke Baari itam def na fa ab diir dem Mbàkke Kajoor bi mu jógee Mbàkke Kajoor googu nag la dëg la dëgmal Daaru Salaam Daaru Salaam googu nag daf daf ko sanc yàggu fa bi mu fa nekkee ab diir fekk na leeru Touba la sëriñ bi doon wër bi muy wër Daaru Salaam ba agsi ci daf ni dëkk bii de yi danaa ko rafaatale sama rakk ju baax ji nga xam ni yitteem yépp jox na ma ko gis na ni sama yitte yépp jox naa ko suñu borom muy maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam waaye ci biir loolu itam ca la sëñ Touba sancee Daaru Salaam rafaatale ko maam Anta daal di wax ni nag am na leneen lu ko tax a jóg ci la ko leerug Touba daal di feeñu mu dëgmal Touba bi mu fa ñëwee wax nañ leen ni bi mu agsee foofu ci pàkk bu ñuy wax Daaru Xuddoos la ko suñu borom xamal ni fii daal nga doon wër waaye nag liiñ koy jaayee nangam ak nangam la ñu faram fànceel ko ko Serigne Touba ni jaral na ko xam ngeen ni foofu ci Daaru Xuddoos googu ci jàkka yi bayti jooju fa la duggee xalwa weer ak fukki fan ak ñaar kon nag mbokk yi ñu ngi leen di santaat bu baax a baax. di leen gërëmaat bu baax a baax incha allahu rabbi ñu ànd ak yéen suñu juróomeelu épisode ngir leeral leen eh, daa eh, leeral leen liggéeyu Touba boobu fi Serigne Touba doon waajale tukkeem bu rëy boobu ci ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa baraka